asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mooy nuyu Sénégal yëpp Sénégal sénégalais et sénégalaises mooy nuyu Cheikh Mountakha du ko jiital ci nuyoo bi yàlla na fi yàgg te wër ak kullu xalif général des Mourides mooy nuyu sama yaay dafa tawat maa ngi koy ñaanal mu taneeg jàmm te benn yaay ba tëdd kenn ba tëdd mooy nuyu ñi nga xam ne ñoo ngi ci hôpital yi. yàlla na leen yàlla jàppale defal leen wér ñoom tamit ba ñu del seen jaboot may seet tamit ñi nga xam ne les détenus yàlla leen yàlla jàppale ñoom tamit ba ñu seen njaboot maa seet aussi les femmes yi nga xam ne ñu nga euh, camp foofu du seen kër yàlla leen yàlla dimbale te jàppale leen ba ñu dellusi ci seen njaboot mooy nuyu nag ku nga xam ne dañ doon fegoo fii ñu koy wax maalaw saw maalaw foofu nga tëdd yàlla na la gënal fii nga jóge sama accompagnant la woon wax dëgg yàlla di sama ndijaay di sama xarit fii lañ daan feggoo maa moom yàlla nag bu soxlaa jaam day ñàkk ma koy ñaanal euh, fa mu jëm rek yàlla na ko gënal fii mu jóge maa law yàlla nga daje ak malaaka yërmande may ñaanal ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci biir suuf yàlla na leen yàlla yërëm te yéexe ñu ah may nuyuwaat nag delsi ci nuyoo bi di nuyu imaam yi nga xam ne mooy boroom kër gi di ko ñaanal jàmm ak salaam ak xéewal ju baree baree baree bari ndax moom bu amee xéewal rek ñu am xéewal li muy wax saa su ne rek boo waxee mu ne fii Grand Yoff TV daara la te ñun à tout moment rek ñu ngi si biir daara ji di jàng mooy nuyu géwal tab bi mi nga xam ne moom laa feggool euh, émission bi mooy nuyu nag ñi nga xam ne ñoom ngi si télé bi ñëpp di nuyu tamit sama famille yëpp du nuyu aussi géejawaay bi nga xam ne fa laa jóge may nuyu Bamba sama doom ji toog maa ngi nuyu euh, Diallo ki nga xam ne bu dul woon ak moom ñun kenn duñu gis may nuyu aussi Koña may nuyu bu ndaw sama doom yi nga xam ne ñoom laa fekk fii ci biir plateau bi ci la très grande télévision Grand Yoff TV maa ngi nuyu ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu jiitu réew yi yàlla na leen yàlla defal jàmm mënuñu mën ñoo téyel Sénégal te benn ay du fi am ci barke Serigne Touba. ah ma jàkkaarloon ak sama doom nag géwal taat bi te man saa yu ma jàkkaarloog moom rek sama xol day sedd ndax saa yu ma jàkkaarloog moom rek dafa am lu ma ci sama biir yaram dafa am lu ma sama biir xol mu nekk nit ku baax mu nekk nit koo xam tamit référence la amaa am chance di dajeeg rek ay référence yàlla nu yàlla jàppale te yàggal ñu fi ci barke Serigne Touba géwal nuyoo baa ngi noonu rabbil alamin Mama Khady ñu ngi lay delloo nuyoo te di la ñaanal yàlla di nuyu téléspectateur yi ñi sétane fi ci biir réew mi ak fu mëna né rek ci réew mi ak bitim réew duñ ci ci siwaat ñaanal nga détenu yi ñaanal malade yalla yalla na yàlla defal leen jàmm ñaanal nga way dawlu kep kuy way dawlu yalla yalla yàlla defal la jamm amin ngi siyaare ñep ñep di siyaare borom kër gi fa comme ni ko wax imam di ko ñaanal yalla jappalé ko taxaw ko mok emploi yi nga xam ñoo nekk ci biir kër gi la mama khadi bu yoon soree mako koy dox way ku la gën ko yar deug la tubaar fakkaar la mooy sa bur dëggeen corde sa maam ma nga des gile bu muy dem daa war waaye muy ñëw dañ koo sëf sa maam corde yor sang saalas bëgg ngoon yu ko faali yaasin tudd lu way ndey ku weddi dee la tudd kon na ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu fa nu fekk baax muy caaro yi mesere di siyaare imam Mamadou Ba suma imaamu jàkk waaye di siyaare imam Abdou Khoudous Diop imaamu Touba Thiaroy ak mboolem ñoo xamante ni rek ñuy dëkkandoo la ñu baa ngay xarit mbaa ay mbokk waaye di siyaar nitu dembu sama xarit bi nga xamne ñuma ne dembu ma te ñi xaar émission bi sa su ne mm-hmm. nga xam ni bu émission bi dootu ñu liggé dañuy taxaw di ko di nuyu sama askanu kër bay di mbayen jokk bok di tek ci loxo Ibrahima Mbay mu nuyu mo fañ bi yépp nuyu askanu sama kër yaay di ëttu moori ak maar di ñaan yalla defal leen jamm di tek ci loxo président Mass mu nuyu mo fañ bi yépp fa tabarakallah ma xadi ñu lay doy nuyoo di la fay te dina ñaanal yalla sàmm la sàmm njaboot assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi ah, bi rafet na jëwal nuyoo bi kontaan naa ci ndax nuyu nga ñëpp nuyu moom boo nuyoo ñi nga war a nuyu rek nuyoo bi day daal di egg fa mu jëm. Hmm. di ñaan jàmm nag ak salaam rek sunu émission bi ñu commencé ko bisimilah rahmaani rahim eggalee ko alhamdulilah rabil aalamiina mu nekk nag émission boo xam ne képp ku koy déglu rek nga am ci bànneex ñun bu ñu sañoon bu ñu toogee fii di wax lu ñuy wax rek ñu ñi dañ ci am yëg-yëg mais bu ñu sañoon du ñu toog loo xam nit ki da ciy ciy gis boppam ñu delluwaat encore une fois rek di ñaanaat jàmm ak salaam. léegi nag jëwal suñu émission tey bii li ko yëkkati mooy les divorces hmm. li nga xam ne wax dëgg yàlla tas na réew mi waxuma Sénégal rek mais partout dans le monde parce que euh, ni ñuy takkee ak ni ñuy euh, fase dafa uute booy bëgg tànk ya ngay dox ak boo demee bay wàcc tànk ya ngay dox dafa uute dadul benn te nit ki boo ko fekkee kër ndeyam ak kër baayam mu mel na mu war a mel nga bëgg ko soxna ay mbokkam bañuñu ci dara ak nu mu mën a demee ndax nag sëy sax gaa bu takk dee am bu ñëppay bëgg à cent pour cent ñii dañuy bëgg ñi bañ ca loolu la ñuy nekk ba sëy ba am mais nag yow mi nga xam ne yaa dem fekk doomu jàmbur ci biir këram nga ne danga ko bëgg soxna ba jël ko yow tamit vraiment war nga am looy seet war nga am looy sédd rawatina nag bu ñu demee ba suñu borom def ci ay tout tànk ab sëy moom bu ñu demee ba ay tout tànk nekk ca rek sëy ba nekkatul jëkkër ja ak jabar ja xale yi ñooy tax parce que kuy sëy da nga ñaan ñaan am fond am am fondement te fondation fondation bi mooy xale yi donc boo demee ba am ay tout tànk nag war ngaa xam ne seen yaay ak lu mu la mën a def rek war ngaa xool ca ba nga koy jëlee kër ndeyam ak kër baayam mais yow waratoo xool leneen ak lu problème dangereux dangereux sëy nag sunu borom moo ko sàkk avant muy bind dee. avant muy bind dundu dafa bind dee avant muy bind ànd tamit dafa bind tàqaliko kon sëy boo gis rek am na ànd am na tàqaliko te sëy boo gis nag am na ñoo xam ne suñu boroom bu ñuy sëy dañuy dem ba màgget dañuy ànd ànd ànd ba gis seeni sët ak seeni sëtaat am ñoo xam ne suñu boroom bu sëy amee benn doom ñaari doom suñu boroom nee na fii lay yem am na ñoo xam ne sëy day am tey balaa sëy ba am trois mois sëy ba tas parce que lépp ci mbir suñu boroom la ñaar ñu mu ne dañuy ànd moom faw dañuy ànd mais bu suñu boroom dogalee ànd ba ndax ba ànd ba ba muy am dafa rafet donc bu tàggoo ba di am tamit na tàggoo ba rafet waaye da ngay jël jël bu rafet contentement am nga dem bay wocc wacc boo xam ne wacc bu bizarre boo xam ne day dem ba ñenn woon waa ji wóoluwun ko dañuy daal di am dëgg kon nag dafa am loo xam ne nit dakaa war a set sëy bu tas nag góor ak jigéen ñëpp ci bokk yi mais nag man toor bi yëpp dama ko teg ci kaw góor ñi nga baal ma nag géwal tey affaire bi dina saf ci yow parce que yéen ay góor ngeen te yéen yéenay fekk doomu jàmbur ngeen labat ko fekk ñëpp bëgg ñu jël dindi jox la soo demee ak nu mën a demee rek tas bu amee kenn mënu ci dara ndax suñu borom bu nekkul fii lay yem tey noonu la naan kun bakkan fii lay yem tey kenn mënu ci dara parce que doomu aadama du forcé mais nag nu mën a demee rek comme ba muy door dafa rafetoon bis bu divorce da am rek ngal la ngeen rafetal bu ca njaboot amee ngeen toppatoo njaboot ga te xam ne sëy du benn fan du ñaari fan géwal émission bi tey jii li ko tax a jóg dafa wër àdduna sëy yi bari na divorce yi bari na sëyu trois mois yi bari na sëyu un an yi bari na sëy boo xam ne bu ci benn doom juddoo sëy ba tas na la plupart da ngay dégg ñu naan xale yi seen indi time yi la xaw ma nu ko tuddee noonu li ñuy def nii dangay ngay seet xale bu jigéen bu ko def ren bu déwénee boo ko laajtee ñun la ma nga kër yaayam xaw ma nag mbëggeel gi moo sincèreul xaw ma dadul dëgg ci ñoom xëy na ku góor ki xëy na moom moo am xeme moon pour jël xale bu jigéen bi kese te yooyu yëpp day joué ci biir sëy yëpp day joué ci biir sëy am na ñoo xam ne buñ la seetee seet mënuñu la am danañ def tuuba dugal guro amuñu intention yor la donc sëy boobu du dem jigéen ji dina toog ne waa ji am na lu mu yor naa jéem a seet jéem nga lekk waa ji bañ proposé nga ko mariage mariage bi am na am nga ci trois mois pare nga ci moom kenn ku nekk daal dafa am sëy yoo xam ne géwél dafa am ñoo xam dañuy am lu ñuy seetante ci biir sëy mais sëy moom fekkee dafa jóg rek te yàlla kese képp rek tax yaakaar naa ni sëy boobu dangay toog ba dégg fa maam te nag man euh, yaakaar naa ni sëy moom vraiment boo ci duggee ak lu métti métti rek war ngaa mën a temporiser xool temps bi nooy defanteeg moom ba nga jéem fa toog ba suñu borom dogal nga dégg fa maam xëy na nag yombul am 18 ans dugg ci néegu sëy ba am fa 60 quelque ans ba dégg fa maam yombul mais nag lu ñuy jaayante la sunu maam yi dañ ko doon jaayante. dañ doon ci dugg ci néegu sëy ba dégg fa maam xëy na nag la amoon amatul léegi moom dañuy chercher rek yow da ngay am looy chercher ci femme bi soo ko gisee nga approuvé téye nga kii ku góor ku jigéen ko aussi mi nga am lu muy seet ci ku góor ki su ko gisee téye mais bu ngeen duggantee dem ba ci biir kenn ku ne la ngay wër ci sa morom amul kenn ku ne da ngay préféré retiré wu. nag retiré ak nu mën a demee rek na nekk retiré wu bu rafet sëy dagan tas dagan na mën a rafet géwël nañ ko rafetal dëgg la foto Khady fa tabaarakallaahu tey laal nga point bu sensible Mama Khady muy divorce ak ya cay topp ndax dëgg la ni nga ko wujjee wax mujjee waxe say dagan na tàggoo dagan na waaye lu mu ci mën a doon na rafet tàggoo mat naa rafetal dafa am nag ñett yoo xam te ni dafa bokkul muy sëyi ak seeti ak seeyi ki nga xamante day seeti daa am lu muy xool su ko fa gisee toog boo ko fa gisul day daal di daal di maanaam day daal di dem. Mm-hmm. mën naa nekk ci ko góor ki mën naa nekk ci ko jigéen ki. dëgg la yi nga xamante ni daa sëyi kooku it boo ko yoree dina fa toog waaye boo ko yorul du fa toog. dëgg la waaye ki nga xam ne daa sëyi moom kooku caaxaan du leen tàggale. dëgg la ndax dafa ñëw pour sëy si. Mm-hmm. Ah, comme ni nga ko waxee rek ma maman Khady sëy daggan na waaye tàggoor daggan na. waaye lu mu ci mën a doon. ki nga xamante ni yàlla da na a boole ba ngeen amul njaboot. kooku donte ko yàlla yi jeexal na seen diggante sax ah war nga mën a sàmm njaboot bi nga xamante ni nag yàlla moo leen ko jox. dëgg la ku ne xam ne ni jigéen doole jigéen lang na waaye bëriwut. dëgg la waaye fas jigéen abandonné ko moog ay doomam doo nemmeeku doo fay école doo jàngal alxuraan doo xotti yére loolu góor ko def def nga loo xamante ni boo dajee ak sa borom bi nga ko la yow xadi hmm. da fay jaadu bu ci deugante ba ak borom. deug la lepp loy def di ci sa borom rek. deug la ding ko defee ni mu gëna a sa kam talaay katan deug la way do xol ni mu ko def rek. ni mu la nexé rek nga defé ko non ah dafa am nak divorce ak décharge. Hmm. divorce moy and ngeen ba yalla jéxal seen deugante mu jeex nga xamni li fa la yam deug la wa du tee da ngeen rafeto di ngeen hmm. deggante mu nek mu nek sa jigen nga ci amagnam ngeen ànd gunge xale yi. des fois sax nga wax ko soxla yi bopp mu fajal la ko te ma sàmm du ko yëg ma dem du ko yëg ndax mi ngi xool na serait-ce bu dee benn jour sax parce que ngaa dab baa xam. dëgg la waaye décharge nag maman Khady. Mm-hmm. mooy ki nga xam ne dafa nekk poids bu lourd ci sa kaw. Mm-hmm. soit mën na nekk ku góor ki mën na nekk ku jigéen ki sonal la. Mm-hmm. te wala ni mu la war a téye déggalu ni mu la war a déggalee toppatoo ni mu la war a toppalee nga ànd ak moom dama dama dem dem ba ñëpp yërëm la kooku da ngay dem ba tool foo xamante ni. décharge lay nekk ci yow te da nga koy bëgg a décharge bokk nag bu ngeen tàqali ko tàqali ko ba man naa ñaaw mm-hmm. waaye li wétoo daal mooy maa xadi yor ko neex yor day du ndam mm-hmm. yor jigéen ju neex a yor du ndam déedéet góor balaa am ndam mm-hmm. da yor jigéen joo xam ne da ko kii keneen ku ko yoroon ku dul moom da koy wàcc dëgg la xool kii keneen koo yoroon ku dul yow koy wàcc nga yor ko te yàlla rek tax dëgg la kon li ma la waxoon ni yàlla rek tax day daal dellusiwaat maanaam doomu aadama lépp lu muy da ciy dugg te yàlla tax. kese képp ku ne say neex na. bi nga ci duggee dafa yàggul. dëgg la say neexul. mu ko parce que da lay tënk. neexul waaye day loo ne suñu borom moo la ko sant. dëgg la ginnaaw koo sant nag. daa bëgg nga defe ko comme xam ne noonu la ko waxee. dëgg la na mën la bu divorce ñëwee sax soo wàccee ndaw si. Mm. na nga ko téyewaat ba mu jàpp idda ba iddaam mat ci sa biir kër. Mm. ci sa biir néeg nga di ko jox sa dépense. muy togg boo bëggee lekk soo bëggul ni ko sóor naa bu ngoon jotee nga bàyyi ko mu tëdd xam nga loolu kenn mënu koo nekk ak nit koo xamante ni wàcc nga ko. dëgg la te jubóowu leen balaa ite bay jeex ngeen jubóo. loolu dëgg la moo tax bu ñu wàccee dañuy profité génn. génn kër gi mu dem maanaam wàcc yi. Mm-hmm. Mm-hmm. teguñu ko ci kaw dañoo doyul ma dañu koy teg ci aw mer. mer loolu moo tax loolu moo tax bi nga ne <laughs> li li li lislaam ni ku ku wàcc. da ngaa war a téye gérer ko sa kër trois mois. Mm-hmm. amul fenn mhm. gisoo kenn ku nu wàcc moom bu ñu la wàccee tey jii mhm. ku jigéen ki yàkkamti naa doon ay bagage sam dem mhm. wala ku góor ki ni la hee bu mu la fekk sa yaag sa bagage ci biti te boo xefee sax mu commencé roon ci saagee sa bagage di sànni ci biti kon loolu li alxuraan ni boo fasee jigéen mën nga ko bàyyi ci kër durant trois mois ba iddaam mat ba mu leer ko ni yóbbaalewul sa dara ëmbul te loolu la ñuy xool ndax ndaw si ëmb na wala ëmbul léegi su fekkee dara dal na ko fa nga xam ni kii kat mi ngi dem waaye yóbbaale la sa doom su defee trois mois am nag yoo xam ne amul benn conséquence nga ni ko nag léegi jël say bagage nga dem su ko neexee moom bu génnee keroog su ko neexee bu gisee guro mu yëy mais nag loolu xol yi moo mënul supporter nga fas sa jigéen di ko xool sa biir kër muy dem di ñëw nga nga nga di ko xool loolu amul benn góor moom bu koy def moom ala wax alaab jooju moom góor yi tey dañ koo teggi teg ko fee. Hmm. moom bu buñ lay fase tey buñ la fasee tey suñuy génn la hé sa bagage ma ko fekk yow dangaa yàkkamtu ñu fase la ba bu bu nee baat bi dog na rek yow woo nga sa benn nijaay ne ko indil ma oto damay roñ samay bagage loolu moo tax mer moomu ñuy meree moo tax dañ ciy boole doom yi léegi dañuy fase yaay yi fase doom yi am na góor ñu bari ñoo xam dañoo fase seeni doom li nga wax rek doo jàngal doo doo doo xool doo seet demoo école am xamoo doo ko suivre xamoo ci lu muy dox mm-hmm. dundaloo du mm-hmm. tabaski du korite du dara waa léegi géwal doom jooju nga bàyyi ko ak yaayam nga bàyyi ko ak maamam nga bàyyi ko ak ay ndijaayam ñuy xotti di solal di jàngal di fayal école mais euh, géwal euh, euh, moment bu nga xamee ni sunu borom dogal na xalal la jigéen la ñu ngi koy maye ñu ñëw wala ne la sa doom ja nga bàyyi woon presque ay 17 ans dañ koy maye tey te ngeen bokk même ville bokk même dëkk mu leeral léeg nga xëy tas ak yaar wala léeg-léeg xale bi xëy romb la ci booru école ba. yow léegi yow bu la woowee ni la sa doom ju góor ji day takk jabar tey wala sa doom bu jigéen ba nga bale woon ak yaayam dañ koy maye tey jii yow euh, booy ñëw ca kër ga yow yow yow est-ce que nit ngay doon. gàtt si nga fay ñëwee wutee góor nga ndax loolu mi ngi am des fois ndax lu metti metti rek ginnaaw yaa ko jur su bis ñëwee lu mel ni muy ñaani jabar bu dee xale yu góor yi sax mën nañoo defante dem xool seen nijaay wala seen keneen mu maye la bu ñu bu ñ la fekk sa ci li lebal mm-hmm. mais bu dee xale bu jigéen kenn mënu koo mayee. Mm-hmm. te waajuram andu ci teewul hmm. maanaam xale bu jigéen baayam rek moo ko mën a maye wala ku mu jox ndigal nga maye ko dëgg la sinon sëy boobu du daggat dëgg la léegi nag bu demee ba tollu foofu ñu woo la ne la kaay maye ko nga ñëw di ko maye ñu jox la sa cër nga xam te ne yow cër bi ñu la jox de doxaloo ko woon dëgg la ndax kii ngay maye tey de amul lenn loo xamante ni moo la waroon ci moom rek nga def ko loo def loolu boo dee gor nga da ngay joxe sax ndigal ne maye leen waaye doo fa teg sa tànk naan yaa ngi maye kon nag li may wax rek ni ma sëy daal dañ ciy jiital sunu boroom xam ni sëy neexul mm-hmm. sëy neexul waaye jaamu yàlla la dañu wax ni kàmbu lem la ak kàmbu kaani dëgg la soo jiitalee lem gi kaanee ciy topp mm-hmm. waaye soo jiitalee kaani gi lema ciy topp ñu yàgg ci teen baag fekk la dëgg la Adja Khady divorce kenn mënu koo bañ ndax lu sunu boroom dogal la mm-hmm. ndax yàlla bi mu bindee jigéen waaw ñetti jigéen la yàlla bind Adja Khady waaw dafa jigéen boo xam te bi ko yàllay bind benn góor a tax. dëgg la gis nga ko góor kooku. Mm-hmm. nu mën a mel. ak lu ndaw si mën a mel moo koy denc ndax ba ko yàlla bind yow yaa tax. dëgg la foo mën a jaar dañ ko denc. dëgg la am na koo xam ne bi ko yàlla bind taxoo. Mm-hmm. kooku doo ko mas a denc. Mm-hmm. ndax yàlla bindul ci seen biddiw yéen ñaar ngeen sëy. dëgg la am na koo xamante ni nag bi yàlla bindee da nga am wàll sa borom am ci wàll. dëgg la kooku da koy denc ba àpp boo mat nga wàcc sa moroom jël. dëgg la loolu ndogalu borom bi lay doon. ndogalu borom bi lay doon waaye bokkut ak nga xool nit xemmem ko. bëgg am foo jaar ak moom mu bañ. Mm. nga xam ne boo ko takkul doo mën a am loolu. doo ko mën a am nga takk ko ndax ndax uniquement ma danga koy xemmeem. Mm. kooku boo doyalee da koy wàcc. Mm. jigéen ñi tamit. des fois gis ñoo xam ne ni maanaam du sëy li leen dugal sëy bi yëpp mooy nañu xew. ñoom daal nañu xew bu yàlla dogalee daal moom ba nga defal leen entertainment. defal leen seen xew yi ñu jël caméra wut seen i morom daal di béggee loolu rek moo leen intéressé ci sëy bi. bu jeexee jeex na. bu ko defee bu ñu sëyee daal di ñaan baat. Mhm. wala leen def lu mu ndaw ndaw ndaw ñu ñaan baat ah daal di daal di daal di daal di def li nga xam ni mooy divorce. Mhm. su boobaa nag divorce bu ñaaw a ñaaw lay doon. Mhm. loolu yal nañ ci yàlla musa. kon daal adaaxa laal nga foo xamante ni wax dëgg yàlla. dëgg la ah, point bu la. xëy na bu ko dee wax sax. lu ci baree baree bari yi ci mën a génn ci xalaat ak xel bari na. waaye daal li am solo daal mooy daal jigéen daal boo ngeen àndee. yor ko sa kemtalaay kàttan. ndax li may wax rek. dëgg la yor ku neexo yor daal. Mm-hmm. du ndam. Mm-hmm. te yor jigéen mu lay tooñ. Uh-huh. dafa yégal maxaama góor. dëgg la kon nag war nga ko mën a gérer yor ko ci tooñ googu mu lay tooñ. dëgg la bu fekk ni tooñ nga ëppul. Mm-hmm. jigéen daal man jàpp naa daal góor a ko war a yor. dëgg la dëgg la li nga def ci moom ba nu may la ko. boo defoon ne triple am. ci càmmiñam bi gën a ndaw ci biir kër gi duñ la ko may. waaw. loolu dëgg la boo duggee ci kër mhm. xale bu góor bi gën a ndaw mhm. soo yoroon milliard duñu la ko may dëgg la kon boo duggee ci kër ñu may la fa jigéen ci loo xamante ni can lañ la jox li ci des yaa ko yaa ko yow la neex wala ngeen waxtaane ko mais l'islam can rek la la wax muy rëboo dinaar mhm. ñi naan sii mille ñi naan vingt et un mille ñi naan trente et un mille ñu may la ko ci loolu waaw muur ko guddi jox la xam nga nit lu ñuy muur am na kumpa am na kumpa lu jóg guddi tamit am na kumpa am na kumpa ñu muur ko waaw jox la ko kon li am solo am solo dal moy aya Khady. Mhm. lal nga point bu am solo dal, deug la deug la divorce dal man nay rafetal. te ko ci jigen tamit. Mhm. na nga yor ki nga xamanteni moy seeni dom yi la yalla bolel deug la aya Khady. deug la deug la man kay euh, geewal li nga wax ni mhm. li nga wax ni mom wax deug yalla mom mom ken mënu ci tek dara. li nga wax mom ken mënu ci tek dara mom ndax euh, dëkk bi tasna waaw bi dal neena jeug parce que yi na. sëy yi tas bi gaaw na sëy yi kenn xamul lan moo ci nekk kenn xamul lan moo ci nekk loolu moom mooy problème bi loolu moo jaaxal ñëpp loolu moo jaaxal ñëpp kenn xamul sëy yi lan moo ci nekk kenn xamul jinne yee leen di tas kenn xamul rab yee leen di tas kenn xamul seytaan yi say seytaane yi ñoo leen di tas kenn xamul nu mu demee daal loolu daal mooy problème bi loolu mooy problème bi loolu moo tax fi mu nekk nii dëkk bi euh, loo wax rek du doy di tas loo wax ci tas rek du doy ndax euh, jamono dem na dem boo xam ne comme li nga wax léegi nii rek euh, yàlla mooy boole ay doomu aadama jigéen ji fas yéenee seey kenn mënulu ko dara dóor du ko fa jële xas ko fa jële saag ko fa jële lu mën a def rek moom dina toog moom ba seey fa moom jigéen ji nga xam ne nag day seeti kooku bu demee dana xool kër ga ndax neex na bu kër ga neexee mu toog bu kër ga neexul mu takk ay bagaasam dem yoonam jigéen ji nga xam ne tamit moom dafa ñëw pour accompagner borom këram moom loo ko mën a def rek neex na ko loo ko mën a wax neex na ko parce que moom dafa bëgg waa ji rek te yàlla tax parce que li ñu doon wax temps yi la passé ci mbëggeel rek li ma naat li ma doon wax naan mbëggeel mooy fondation sëy mais yaay kese moo mën a bëgg doom mu gaana mu téye mu feebar mu téye mu sonn mu téye mu am dara mu téye mu ñàkk dara mu téye même bu ko suñu borom tegalee doom ju wér di xel sax dina ko téye mais mbëggeelu yaay googu dafa jeex ci mbëggeelu jigéen ñi nga xam ne dañuy sëy ak seen borom kër yi am na nag soxna yoo xam ne ay yaay lañ bu ñu xasee ba dugg ci biir kër gi dee leen fay jëlee lu mu métti métti dañuy maintien mais am na ñoo xam ne waaju ñoo nekk sax ay sëykat yoo xam ne ay yaay la ñuy doon toujours rek ñoo ngi ci ay problème toujours ñoo ngi ci ay situation mais euh, ku sañoon yaakaar naa ne boo duggee ci néegu sëy li ma doon wax rek da fay dégg maam parce que loolu moo ëpp importance ci néegu sëy mais nag comme suñu borom dogal na sëy bi moom léegi dañ koo def dara rek li xaxarkat yi doon wax sëy dara la ko def heure bu ko neexee sumi sànni defe naa dara jooju actuellement moo nekk nit sëyu xale yi ndaxte gisatoo kenn kuy sëy te yàlla tax lu gis bi neex neex neex yaa ngi naan xam naa ci kanam sëy bi tas boo dugalee sa doom tey boo liggéey yaa ngi naan ñàkk yàggul dara sëy bu soobee yàlla léegi borom euh, xale bi génn ci parce que sëy ci boppam moom la xale yi maintenirul te euh, kuy bëgg xale góor yi nga xam dañoo toll ci bëgg kuy bëgg na nga xool jigéen ji nga xam ne sëy moo ko tax a jóg ndax jamono ji doy na waar doy waar koo xam ne ah mbëggeelu léegi presque dañ koy kafe parce que nekkul lu sincère yow da ngay ñëw nekk góor gis benn xale bu jigéen bëgg ko rek te yàlla tax mais xale bu jigéen bi moom am na keneen ku bëgg yow nag boo defee sa yëf mu wan la affaire mbëggeel yooyu ba nga forcé ba takk du la sëyal sëy boo amee trois mois lay yem parce que fekk na moom am na keneen ku mu opté parce que dëgg moo nekkatul euh, moo nekkatul loo xam ne dafa nekk ci suñ biir xol yi dëgg ci boppam moo ci saxatul moo ci sëxinatul koo gis rek da nga koy jéem a lekk koo gis rek da nga koy jéem a da koy jéem a euh, tëral rendi dem sa yoon li ñuy wax boo fexe ba ko rek rend ko rek jéggi dem sa yoon te rend jéggi boobu ñu naan rend jéggi dem sa yoon góor ñi dañ koy def jigéen ñi jigéen ñi dañ koy def góor ñi parce que mbëggeel géwal moo sincératul mbëggeel moo bareetul mbëggeel aussi moo dëggatul loolu rek moo waral divorce yi waaye nag ak nu mën a demee rek li nga wax rek jigéen sëy ngeen ñii ànd nañ ci ñii ànduñu ci sëy am na dem ngeen ba ci biir suñu boroom namm na tàggoo am te bu ko nammee faw day am man daal rafet gi laa ci bëgg waaye jël doom sànni ak ak ndeyam xalaatoo ni ëllëg dañ koo war a maye bàjjanam war a teew maamam war a teew papaam war a teew surtout papaam doom bu góor war a takki jabar ñëw fekk la fa nga nekk ni la pap damaa bëgg a jël soxna damaa bëgg nga ànd sama ñoom di jaay dem waxtaanal ma yow loolu yow doom ñëw wax la ko te yow mosoo compté doom mosoo faale doom mosoo lijjanti doom te doom xam na ne yow yaay bàyyam te yaa ngi dund faaw balaa moo jël soxna dina ñëw ba ci yow li nga wax léegi ni gàcc moo ko yóbbu gàcc yóbbu ko ndànk sax am na yoo xam ne doom dalay jéppi te yàlla na nu yàlla musal ci jur bu njabootam jéppi njaboot boo xam ne muy yaay nag muy pàppa nga def sa doom loo xam ne bon gré mal mi ngi ànd ak yow mais bëggul ci yow dara yàlla na ci yàlla musal nit te nag dafa bari ci sunu Sénégal gi ndax lu ko waral fase yaay fase doom dëgg la maax di dogguma la yàlla bu la de dog waaye daal tàggoo yéeg sëy bi hmm. maa xam ni conséquences yi muy causé bari na trop trop trop. bari ëpp na. ndax li ko waral mooy des fois nga wàcc ci jigéen bàyyi ko ay doomam. Mm-hmm. mu delluwaat seen kër xaju fa ay doomam. Mm-hmm. bu fa xajee tamit amul ko ko mën a jàppale ba mën a yor ay doomam. Mm-hmm. bu ko defee day daal di dugg ci loo xamante ni neexul yàlla neexul. neexul aada dëgg la. di taxawaalu. du ko def uniquement am lu mu dund la ay doomam. man gis naa ko. bari na ci gis naa jigéen ñoo xamante ni dañuy jaay seen bopp. nañ ma mm-hmm. nañ ma nañ ma nañ ma baal ci kàddu gi. Mm-hmm. waaye li ko waral yëpp mooy am nañ njaboot goo xamante ni mënuñoo subvenir à leurs besoins. Mm-hmm. bu ko defee xel mu gàtt moo leen di jubal dugal ci loolu. di jàpp ne loolu mooy la meilleure solution. Euh, loolu nag lu koy waral rek mooy nga wàcc jigéen. bàyyi koog doomam bàyyi koog ay doomam. dëgg la loolu tamit dañ koo war a xoolaat. dëgg la te gis dafa am lu tubaab di wax l'amour de ma mhm. ak l'homme de ma dëgg la gis nga bëggeel. Mhm. dëgg la xale yaa ngi koy caaxaane naan mbëggeel mbëggeel mbëggeel mais gis nga bàjjen xadi dëgg la bëgg bëggul. bu yàggee nga bëgg ko. dëgg la mais nit ki loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg. bu la dee teg yenn naqari bu yàggee da nga koy daal di bañ. dëgg la man xanaa mbëggeel. amatul affaire bi du du mbëggeel affaire xam la. Mhm. mooy nga xool jikkoom parce que est-ce que kii yor na jukkoy ku mën a yor jabar bu dee góor la mm. yow muy jigéen boo nee bay tànn da ngay tànn ko xam te ne woon ni est-ce que kii yor na nekk jukkoy sëykat parce que jigéen tamit dañ koy préparer ci néegu sëy dëgg la jigéen day mën a togg mm-hmm. mën a fóot mën a bale mën a paase ba pare mën a muñ est-ce que amati na loolu nag amatul parce que waajur yi nga xam te ne ñoo war a yar seen doom yar leen ci muñ <laughs> yam leen ci fóot ak paas ak togg ñi de laa yërëm waaw ñoom bamba bi ñu toog te jëlagudu jabar ah ak ak ak kii ak ak jàllo eh, mais préparé leen seen bopp de xale yi léegi yii xale yi léegi dañoo faras de ah, xale yi daal dangal ba mu daan xale yi baleetuñu néeg goro xale yi raxasalatuñu seen goro seen duusi xale yi bu ñu xëyee dangal ba mu dang jël eh, bu ñu toggee bu meer bi lekkee sabaa bu meer bi lekkul sabaa seen yoon nekku ci ah te na ñoo xam ne nag far sax xale yi ñoom bamba dañ leen ci accompagner ñu la maire bi daa bari wax non maire bi bu ko topp maire bi dafa bari wax waaye takku takk takku soxna ak takk jigéen bokkul de takku soxna ak takk jabar <laughs> ah, bokkul billaay du benn jabar dafa am soxna am soxna am dëgg la mais yi nga gis foo leen fekk ñu dangal ba mu dar ah. xat waaw wat seen bopp dëgg la seeni xef waaw kooku boo ci takkee amoo jabar waay dëgg la dëgg la amoo jabar billaay dëgg la gis nga booy am jabar amoo jabar jigéen boo koy ngoro ah. da ngay bàyyi ba digg bëccëg. Mm. nga bett ko dem seen kër. Mm. di ko bàyyi xel nan la nekk ak ay parents. dëgg la nan lay yëndoo seen biir kër. Mm. xool ba xam kii est-ce mën na togg. parce que jigéen boo ko takkee te mënul togg da nga wuti mi naan mu lay togg. mi naan lay togg daal. jigéen boo ko takkee te mënul fóot da nga ko wutal bon muy fóot. billaay dëgg la bu mënul paase da ngay dem di fay. ñu koy passé dem ba nekk charge bu. bu mag bu mag ci sa kaw bu mag kaw. léegi nag bu bëggee gis sincère lu ndaw la lay defar nga pétaat. waaw waaw parce que charge boobu mu nekk ci yow. muy fóot di fay jënd gaz fay ku paase fay ku nangam ak nangam nangam. plus appartement bi nga loué. dëgg la ba pare surtout nekku ñoo papa nekku ñoo yaay léegi c'est toi et moi la. kese da ngay ci sa yaay daf ma xatal mënuma nekk ak jabar boo ko takkee te mu ta nekk ak sa yaay maa xam. loo koy ko dara loo koy doyee. ko dara jabar da nga koy teg ci sa wetu papa ak sa nga leen noppee gis. ci àdduna mm. dimbali. la. au moom lu mu la rusé. waaw mais jigéen bu la takkee génn la ci sa ndey génn la ci sa baay utile la appartement ngeen dem toog fa ku la tàqaleeg say mbokk ci ay mbokkam la la jëmee. moo tax it fase ga dina gaaw fase gi day gaaw. xeex ba dina dina jolli ci appartement ba. Ah, violence conjugale mu ngoog xeex ba dana jolli ci biir appartement bi. Euh, euh, ñaawoo ba dina fa jol ban heure nga dugg ci kër gi ban heure nga génn ci kër gi parce que xale bi am tu ko contrôler xale bi heure bu ko neexee lay dem heure bu ko neexee lay ñëw te bu la yàlla dimbalee nag ba dajawoo xale bu jub dajawoo xale bu sincère naan leen ne amoo jabar te boole ko euh, li nga wax rek. kii yee dina bari charge yi dina bari appartement rek fi mu nekk ni jël ko rek erreur la déli la nga am kër baay bu ne yang kër ndey ni yang ay mag ak rak ñëpp ne fa ñëla takk ñekk takk jabar ñëpp seeni jabar ne fa yow nga takk xale mu ñëw seet seen kër ni la ah man de boo ma takkee vraiment doo mën a nekk ci kër gi boo ma takkee moom doo a nekk seen kër moom ndax seen kër gi këru famille la kër gu mag la seen kër gi nangam ak nangam xam nga yooyu yow tam nga daal di nangu daal di topp sa mbëgeel ba ne ko amul problème daal di ñëw waa maman man damay mariama ah, soo marié ko naa fi benn néeg fa yóbbu sama jabar benn néeg la yàlla dimbale ci appartement nga jëm te na loo fay yàgg yàgg yàgg bis boo demee mën la too ko dara day xëy ni la mënatuma ko yow nag a xalaat yow retour bi nga war a retourner seen kër ba nga war a jóge ci appartement ba dem seen moom nga war a xalaat boo feebaree ci appartement ba di nga mujj seen kër soo mën a too fay di nga mujj seen kër lu mën a xew rek yow na la leer ni Eh, ca papa ak yaay ngay dellu kon nag toogal ci papa ak yaay ba xéewal ñëw ba nga mën a am kër sooy dem bu papa yaay toogee ci kër gu mag nga mën a ànd ak sa benn rakk yóbbu wala sa benn mag yóbbu kooku bu fa amee soxnaam nekk fa soxnaam ngeen fonne waat fa beneen kër loolu mooy waral kër yi di bari kii am na kër kii am na kër kii am na kër lépp nekk benn kër famille boo xam ne macha allah loolu sunu maam yi doon def waaye nag kalaas gi lii xew léegi li nga wax noonu la man de man de sama bamba mee ca kër ga. bis ma indilee ku watu ku watu ñëw ni ma euh, yaay kii booba laa ko naan booba naan kii nga fi indi kii yow mii yow sama kër gi fu tegat sa tànk moom ba mu xam ne yow kafoo ci li ngay def parce que dafa am yoo xam ne du wéy te borom boobu ñëwaat mu indi présenté la ko bis bu ko takkee di nga am yow sa yow yaay ji di nga dugg sa biir néeg toog di jooy parce que na mu amee fit ba ànd ak moom ba ñëw présenté la ko yow mii yaay nga ñàkk fay ba accepté xale boobu ba mu dugg sa biir kër yow di nga am problème parce que moom sa doom moom bëgg na ba pare dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi waxal ak moom ah, ah. Hmm. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam jàmm ngeen yendu jàmm rek foo dëkk ak foo may woowee man de maa ngi dëkk Caaroy kër Ibu Njaay noo tudd Diana Seck laa tudd. Ah, ana waa Caaroy. ñu ngi ci Ibou sama mag la. ah Ibou sa mag la. waaw mooy sama taawu yaay. mooy sa taawu yaay kon yaa ngi ci biir émission bu ñu nëbboo bi. waaw mooy sama taawu yaay doon ku responsable nag. ndeysaan. ku baax ku ñeme njaboot. ndeysaan. koo xam ne lekkul dara bàyyi kenn. dëgg la. ku mën a suturaal ay njabootam. dëgg la. ñu ngi koy ñaanal nag suñu borom defal ko jàmm ak tawfeex. amiin allahumma amiin. may ko nag lu kawe ndax kooku nga toogal noonu. Mm-hmm. Ah, wax dëgg yàlla kenn amul lenn loo koy sikkee. dëgg la. ku baax la. dëgg la. baax moom mënta weesu baax man de wax dëgg yàlla mooy sama taaw yaay ñoo bokk benn nday. ndeysaan. waaye sama xarit la ñëpp samay xarit lañ waaye moom da cee raw. ndeysaan. wax dëgg yàlla ci kaa bi ngeen nekk nii ci moom moo ma dal man ma tàggoog sama borom kër. Mm-hmm. nekk fi. Mm-hmm. waaye Ibou de wax dëgg yàlla man dama koy ñaanal ay xéewalam yokk ba mu yokk ko. amiin allahumma amiin ba njabootam gi lu mu sonn ci njabootam gi njaboot gi fay ko ko. amiin allahumma amiin. yàlla defal leen jàmm def émission bi nag dem ba kawe seen njort. amiin allahumma amiin. defal leen mu dem ba gën a avancé bu baax a baax a baax. léegi négal ma jox la Ibou nga nuyoo moom. waa baax na waaw. Fatou. allo noo def. Maxal Diallo maamu Thiam yow loo dund doyul. jërëjëf jërëjëf. dundal wéral amal jaam. jërëjëf jërëjëf. yàlla dolli lu ba mu kawe sa njort ndax ku baax ku ñimee njaboot nga ku responsable nga. jërëjëf jërëjëf. wax dëgg kenn fekk gu ci lenn lum lay sikkee. jërëjëf jërëjëf. te yaakaaruma mu am nag ci àdduna kon ñu ngi lay ñaanal jàmm ak xéewal. yàlla na yàlla boole yow tamit rakk baax nga. yàlla defal leen ko yéen ñëpp. amiin waaw ju baax nga yow tamit. maman boobu nga toog ak. <laughs> defal leen nag télé ba kawe seen jot. ci lu baax amiin amiin waay amiin jërëjëf. waaw damaa wàcc rek woote. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ko yàgg bëgg bu ñu diw baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax. waaw yow nag moom mbaxal njaaloo kenn du yow ci mim réew. jërëjëf si àlla yàlla yokk sa jaam ak sa xéewal defal ko ñëpp. baax na ma maax di. Ah. kooku sama rakk la ñoo bokk benn ndey macha allah. ndeysaan yàlla defal ko jàmm. amiin moom ko dal nii. moom la ñuy waxtaanee nii. mooy divorcé na ak borom këram. xam naa du ñuy déggante lu bari sax waaye problème bi mooy moom ak boroom këram sunu yaay yi ñoo bokk ndey ak baay sayu mbokk la ndeysaan ah xam naa yàlla mooy dogal noonu nag waaye mm. ñoom ñaar bëggante nañu fa tabaarakallaahu ndeysaan waaye li am solo bi am solo daal mooy jigéen bu la yàlla booleek moom mm. boo koy takk da nga koy xool mm. da jigéen dañ koy xool parce que dafa am benn tubaab boo xam ni doom dafa ñëw jënd ci moom iPhone iPhone bu cher ba pare daal di jël protège bi def ci iPhone bi. waaw ñu ne ko papa jënd naa téléphone. Hmm. mu ko jënd nga téléphone mu ne ko waaw. mu ne ko li ci kaw nii lan la mu ne ko lii protège la mu ne ko ah protège boobu est ce que moog téléphone bi ñoo ànd mu ne ko déedéet damaa jënd téléphone ba pare jël protège bi tagaat ci. Hmm. mu ne ko protège moom lu mu ciy jariñ mu ne ko da koy protéger ba bu daanoo du yàqu. ba pare day tax téléphone bi gën a dëgër gën a yàgg. Mm-hmm. man ko te protège mi ngi ci nekk nii te ko la woo dina la jot. Mm-hmm. ni ko waaw. mu ne ko waaw léegi sagam téléphone bii nga xam ne téléphone dong la. Mm-hmm. moom nga protégé. te teewu koo rafet teewu koo accessible. teewu ko di fonctionner normal. waxuma laa sa jëmm ji ak lii nga sol. mi ngi sol benn sous-vêtement bu gàtt ak mini jupe. waaw léegi jàngal na ko ni. sagam téléphone la ñuy protéger waa waaw waxuma la ak doomu aadama dëgg la. mais góor ñi léegi tamit bu ñuy takk du ñu takk jigéen ngir jukko ji physique bi la ñuy takk. dëgg la xool xale bi nañ ma baal dagg bi mool na. Mm-hmm. xale bi poitrine bi taxaw na. xale bi fes yi roo na. avec la nouvelle génération ah, noonu la noonu la xamuñu ne génération bamba bi la gis nga style boobu nga takk ci moom waaw boo ko yoree quelque temps rek style boobu da lay da nga koy miis da nga ciy daal di doyal dëgg la dëgg la bu fekkee côté que loolu mbëggeel ak désir tamit bokk du benn désirer mooy nga xool jigéen xemmem ko waaw comme li ma la dagg bi moom na waaw su wala ne ginnaaw nga jooy parce que xale yi ah. léegi tamit li ah, ñuy sol daanaka soluñu yére déedéet mais dañuy sol xal yére boo xam te ni daanaka ñooy provoqué kenn lan la ñooy provoqué sax lépp day nekk ci biti ñooy sa lépp nekk ci biti la Eh, kela la tax ngir lolo takku la ngir dala sa jukko mi dala ngir sa sa style sa physique bi ngi ko bi ngi ko wat sa apparence sa style waa bu lo yoree quelque temps da ci daldi doyal parce que miss na deug la mais ki hmm fek la sa keur nday nga hmm mu seetlu la gis nga doxale ak sa papa gis ni ko respecté gis ni doxale ak sa yaay gis sa yaay aussi ni mu respecté sa papa mu gis la bu bëccëg ñewé nga togg lay mu ñew fek la ngay bàcc leg leg mu ñëw fekk la ngay topoto sa yaay mm. leg leg mu ñëw fekk sa papa mere la di la angale tontu mm. hmm mm. nga ni ko nañ dem boîte mu ne la yi man ma tàggu sa papa ni ko nañ dem boîte nañ dem bërëb sangam sét sama mu ne la yi xana mu non ñum man sa papa daf may tere loolu kon yoyu nonu ci dañuy tànn jigéen waaye jigen bo xam te ni foo mu woy la nga duggal ko ligne de communiquer ak mom ba 5h du matin ci ligne 0h bi 0h ba 5h du matin nga koy communiquer ak nit koku ku la bëgg du la ko def. deug la jigen bu am fula du la ko nangul. deug la parce que tamit guddi da yalla da ko sak pour nit ñi teud noppalu pour récupérer noppal esprit may bay ba minuit 0 heure nga jël jigen duggal ko liñ mo nga gëna yow téléphone. di wax rek du ngeen wax lu am du jur jam sax 10 minutes de communication rek ëpp na. du du jur jam sax. 10 minutes de communication jam sax la dul mujj jur. lu bari bari tam importance. dëgg la minutes foko waxe war nga mëna wax nit ko lo xam ni. la importance et puis mu jeex. nga dugal ko liñ da ngay dem ba di wax wax yoo xam ne amul bopp. amul genn waaw mu jur déraillement bi nga xam te ni moo am léegi. appel vidéo. yo yooyu nag. loolu lay indi. parce que moment boobu. Mm-hmm. moment boobu mooy mooy indi yàq gi. moment boobu mooy indi toj bopp gi. moment boobu ñëpp a ngi nelaw mën nga def nii sax sa biir néeg envoyé ko ko. loolu moo bari actuellement. te boo ko xoolee nag euh, géwal. Mm-hmm. yërmande tamit dafa xaw a manqué ci góor yi wala daa manqué. Mhm. dafa manqué dafa manqué yërmande moom dafa manqué ci góor manqué na parce que boo xoolee li ma commencé sama émission rek jigéen nga xool ko ak na mu mel taaram jekkaayam fukk taxaw mu ne yow la nga takk ko da war a dugal yërmande parce que boo yërëmee rek yor yërëm moom boo ko defee rek yor yaay bu yërëmee doomam da koy yor papa bu yërëmee doomam da koy yor même ki la jur te yërëmu la sax du la du du du du la mën a anticiper. dul mën ci yow dara kon nag yërmande tamit bu nu la jëlee jigéen jox la ko noo mën def war nga ko mën a yërëm mais am na góor ñoo xam ne soo yoree doom muy jooy nga ni ko téyel ma ma yëkkati bool bi teg ko fii sax mun la naxal sa doom naxal ko sa bopp. am na ñoo xam ne doom ji moom su soo ko ëmbee ba wësi ba mu nekk si kaw lal bi jeex na buy jooy sa doom ji daa mën a jooy sa doom mel ne yow doom ji ko si yaa ko fi indi yërmande tamit géwal dafa manqué ci góor ñi de. manqué na ci góor ñi loolu nag. yërmande waaw waaw dafa ah ah ah yërmande dafa manqué ci góor ñi de. loolu moom dafa manqué ci góor ñi. loolu moom waaw am na ay góoram yoo xam te ni wax dëgg yàlla amuñu yërmande moom. waaw moom waaye yàlla dogal na ñun géwél loolu dal ñu. géwel géwél danoo bëgg doom ba mel ni aw nag. yow yow yow waxal sa bopp rek ñun moom ñun moom géwél danoo danoo sa bopp xam nga doom. waaw doom daggitu res la. Mm. man naka la nit di mën a jël maanaam bañ doomam daal man loolu man loolu man loolu man ça me fait vraiment mal xamoon nu lu koy waral daal parce que lii boo xamante ni ci yow la la ci yow la soqi ko nga xamante ni su rombee di dem sax bu fekkee ne da ngeen a tolloo ku ko xool mën leen a jaawale ndax nuroo doom alalu yàlla la bu la ko yàlla joxee nit ku nekk sàmm nga. Mm-hmm. bu ñu mën xam yàlla na laaj li doon sàmmu noo ko sàmmee noo ko sàmmee. léegi nag mooy li ma lax rek lépp dafay dellu si waat rek ci bëgg te yàlla tax ak yor te yàlla tax. say bo ciy duggu da ngay dugg ne man kat majeur naa léegi dama wara tak soxna sa dama judd fekk sama ab sama yaay sama keur pap ma judd fa man ak sama mak wala man ak sama rak kon suma ma bo tollu ci ben niveau bi dama wara yor soxna. Mm-hmm. su ma yoree soxna tamit nan la ko wara a yoree. Mm-hmm. loolu nag aussi tamit goor ñi dañ koy jàngi ci seen papa bu fekkee da nga nekk sa papa gis léeg-léeg say ay togn ko mu muñ du ko du ko day wax rek ni ko bëgguma nangam wax nangam dal di baye mais nak da ngaa fàttali guuy guuy day jur xatax. waaw loolu day amna mom la de olof yang koy wax. ah day olof yang da ngay judd ci keur go xamne sa papa dafa respecter sa yaay sa yaay dafa respecter sa papa. Hmm. mais yow nga ñew insolent. waaw day am. ñew nga ñew nga ñew nek benen ñew nga yow ñew nek benen is xamul waral loolu day am is xamul waral loolu. lu ko waral. moy la nouvelle technologie bi ñu xam mom lañu top ba ma xadi da ngay reer ba suul te ju sa bir nek genn fanan ci mbedd mi te génnoo keur gi est-ce que li mu bëgg a wax. xam naa li nga wax yaa ngi ci biir kër gi mais. fanaanoo ci kër gi fanaanoo fi. parce que internet bi nga fanaanoo waaw ca biti la lay indi ca biti la la lay indi moo tax li ma lay wax ne. jikko yi nga xam te ne dañ koo yor te dëggaani ko. nga xam te ne olof am na waykat bu ko waxoon sax ni li fi maam bàyyi woon bàyyi yàq na ko ba yàq na ko legi njabot gi sank nañu. deug la jaaxadi njabot gi dañoo sanku dañoo sanku moom te sànku ñu sax sanku bu ndaw nak dañoo sanku japp nañ ni ko wax la no pay yi yalla wàllu wees na li xewoon léegi mënatu la am. la amoon nit no gën ba gën am nday ak sa bay mu ta nek mom te nak yow bi nga tollu ci bëgg sa nday ak sa bay ño la yor di la toppatoo ba nga mëna gis nit di la bëgg buñ la sagane won rek amana nu muy démé duñ la bëgg kon nag bu ñu la toppatoo ba nga toll ci bëgg. Mm-hmm. keneen ku leen indil na lekk koo xamante ni dina mën a nekk ak ñoom waaye li wëtoo daal mooy jigéen daal boo ko mm-hmm. yoree. ba mm-hmm. ko ak moom. même bu ngeen amul njaboot sax te ngay góor di jullit seen relation mën naa rafet mën ngeen di déggante de temps en temps bu ko defee xamal ko ni ko yàlla moo dogal suñu koo man ak yow waaye teewul mbëggeel gi fi nekkoon ba léegi moo ngi fi malgré tàggoo nañu su amee soxla ne la ah man kat nangam ak nangam ak nangam. Hmm. boo amee nga may relation bi di dox. am na may bëriwul de. ah parce que nag fa dox daan taa ba léegi soo demee fekk fa tef c'est-à-dire tas ga tas gay ñaaw. tasin ga tasin ba. mooy mooy mooy waral. loolu du am. li ma lay wax rek li nga ñu toogee dama ne na émission bi tey yéen a ko moom. Hmm. parce que yéen fekk doomu jàmbur ngeen takk ko. yéen a war a yërëm yéen a war a yiir yéen a war a jàppale. te da ngay teg xale bu jigéen fii balaa mu am trois mois nga gis moromam jël nga ko teg ko ni degi respecté too ko faalee too ko lijjantee too ko yërmande zéro yërmande moom bu nekkee zéro rek tolérance zéro parce que yu ci baree baree baree bari divorce yi ci góor ñi lay jóge ndax am na jigéen ñoo xam ne dañoo bëgg a sëy parce que am na jigéen ñoo xam ne amuñu ku leen yor am na jigéen ñoo xam ne yaay deena papa deena soo xasee ban la bëgg naa danaan alhamdulilah ndax mootalee benn néeg sax ma toog fa jàpp sama tranquille mais da ngay jël jigéen dugal ko ci sa néeg ba pare di ko théoriser ci biir néeg da ngay jël jigéen dugal ko ci biir néeg toog ba benn heure bi nga génn bàyyi ko ci néeg bi tam mu leela yow boo génnee ci jigéen nga jëm nga jël jigéen tëj ko ci néeg bu la nee dépense nga ne ko non yorogu ko am ah après maa ngi koy lijjanti lépp jigéen di ko wër di ko di ko muñ ci biir kër loolu ana yërmande góor ana yërmande góor. ah raxali nag raxali nag yaa ngi ñu bëgg a yar mbir mais affaire bi c'est ah. vice versa de. affaire bi c'est vice versa xam nga war a parce que jigéen maanaam góor bu la takkee jox la sa dépense nga togg soo bëggee xotti mu xotti soo bëggee xaalis mu may la li mu am. mais kooku bu génnee dem bàyyi ko mu dem rek yàgg-yàgg day ñëw. du du benn bu ko wéeri wéeri jaaree daal du du du foofu fekkee ni góor da nga ko bëgg a téye rek déedéet jëmuma foofu géewal <laughs> jëmuma foofu jigéen moom la warloog moom soo ko defee waaw demal ba heure bu la neexee nga ñëw parce que am na jigéen ñoo xam boo leen am xasee respecté teg leen place am foo leen teg ba mu leen leen teg ngeen teg nga leen fa soo génnee ñoom seen yoon nekkul ci sa dem mhm. fi nga leen bàyyi fi nga leen di fekk mhm. parce que déjà am na ci yow confiance ba pare mhm. parce que xam nañ ni yow peut-être homme de parole nga tey boo demee dañuy naan sama jëkkër tey bu demee ba gis lu mu bëgg dana ñëw toog ak ne ma ah soxna si kat am na lu ma gis damaa bëgg ñu waxtaan ci balaa ma ko ëndi mais yéen pli pire ngeen di def da ngeen di toog bañ leen may jabar ngeen ñëw ne ko booy tey ji am na fu may may fële ok wala may nañ ma démb jabar wala may nañ ma démb moom léeg-léeg nga xëcc ne nijaay ma ko may non ba léeg-léeg sama rakk papa ma gis nii koo ci wax ne ah? ko damay am naa koy bëgganteel dama koy takk waaw du la ko may ah, ah lu tax du la ko may day jóg lu muy jóg dem uti ay maamanam ay maaman wala mu wala wala mu tàkk la histoire boo xamante ni tataa xali ah du la teree takk de xale yu féroce yi nii man la du la teree takk mais moo gën nit ki di toog mën na am na fu ngeen jaar mën na la mën na la gaañ sax lu mu métti métti métti lu déedéet déedéet ah wóor léegi nooy def xale yi nga gis ni ñu amee fit nii mais boo takkee dina ñëw de xanaa takkal ba pare rek ah ni leen wala boog ba jour ba waaw ngeen ko tey de léegi loolu tas sa kër waaw non xam nga loolu boo ko defee say kat non non non non nangu ma géwal ah non doo nangu mais c'est-à-dire loolu day tas sa kër waaw xam nga tax muy tas sa kër léegi dèjà yow nëbbatu nga ko ak lu métti métti rek gis nga lu nit def nit mu am rek yàlla moo ci ànd lu métti métti même bu desee deux jours tëddal ak moom ba guddi nga ne ko jógal ñu waxtaan man yaay sama aawa yaay sama xarit yaay sama yaay yaa ma jàppale nangam nangam ne nag ñaareel bon te defoo ma dara waxoo ma dara jigéen moom heure boo ko ne dama lay may jabar dama lay may wujj il faut xolam jóg ak lum la bëgg bëgg bëgg ak loo investir investir ci moom jigéen bëggul wujj amul benn jigéen bëgg wujj mais tamit nga seet yow noo ko noo ko koy waxee ba mu leer ko moom xam na ne am na kuy ñëw bu fekkente lu bax rek mo doxone sa diggante ak mom dara du ko yak mais tamit nag bu fekkee diggante bi amna ay problème ngeul ngelbatu ko dem tok ba nit suba lañ lay may wala nga dem ñëw ni may nañ ma jabar léegi nga ni ko may nañ ma jabar mais sey yu bari fofu lay joggé sa fondre day melni tax mu joggé ci aw di ma moy li ma la wax rek jigéen ah? yalla da ko bind ci encaisse gis nga bàjjan xam yi am na ñoo xam te ni boo leen defee loolu am na mën nañoo mer nak amna yu mëna a mais dañ ko encaissé parce que mu waral lool gis nga goor xam nga dafa am ñu wax xam ne polygamie lañ ci wax ak monogamy waaw ah monogamie mooy boo xam ne bu la neex takk. waaw jigéen boo nekkee moom. Hmm. lu sëy neex neex neex. daa war a xam ne heure boo gisee moromam bëgg ko doon topp. dëgg la moom kenn werante wu ko da ko war di woyaale wu ko sax. mais su fekkee ni moom dafa fiir nga am jabar ju fiir te musuloo nangu bu jël responsabilité xaw ci moo xamal ko ni ko loo fiir fiir fi heure mu demee ba gis ko ma bëgg. dama koy takk indi ko fii ci biir kër gi. wala boo fu ma nekk ak moom mais new ma la ci yow rek laay yem. dëgg la parce que lu ci bëree bëri mooy li ma wax lu ci bëree bëri di wax dëgg te yàlla tax mais góor yi suñu problème mooy benn problème la am. dama mhm. yàlla baal mooy du ñu wax dëgg. dëgg la waaw ñun moom. loolu suñu mbir la du ñu wax dëgg. moom seen mbir la yéen a ko moom ñu la seen ñëw danañ abbi kos. waaw léegi oto. waaw lépp xaalis. waaw ñëw di la imposé damaa yor. waaw fekk na bu ñu añee du ñu reer. boobu nag mooy sëyu trois mois bi ñun góor ñi moom lañ am. mooy sëyu mois bi. léegi ndax bu fenn fee bu fenn feeñee rek sëy ba tas nit daal kenn moom da ngeen koo mën. boo koy boobu moom boo ko bëggee takk bàjjan xari mm-hmm. wan ko njëkk mooy fulla ak fayda. Uh-huh. fulla ak fayda mooy lépp loo xam te ni mënoo ko. Mm-hmm. bu ko diggee ak moom. dëgg la lu nekkul ci yow bu ko ko wan. dëgg la waaw bul xeeñ loo diwoowul xaw ma bul diwoo loo xeeñ xaw ma nu ñu koy waxee. affiche un da ñëw dawal kabo yi. dëgg la loo xam te ni nekkul ci yow. Mm-hmm. loolu tamit déception lay indi. dëgg la jigéen mën nga nekk ak moom sax des booy dem seen kër sax ba yor xaalis bari donte ko yor nga xaalis wan ko ni ko damaa ñàkk. Mm. parce que nit am na bu ñàkkee pëlën dama laa bëgg rek dëgg la. dëgg la nit moom jamono bi nga xamante ni mu ngi toll ci kut kut yi. pëlën dama laa bëgg dëgg la ci moom. Mm. mais nit bu xasee yor kenn dootu ko bañ. dëgg la fekkee da ngay dem ci kër salaamaaleykum nga yàq fa ñetti junni ñeenti junni. Mm. ma yaayam ñaari junni moom bu amee problème mu cinquante mille léegi léegi nga réglé ko. nga réglé ko waaw dugal ko iPhone bu cher. waaw yaay simple lay daa bari ci yéen. waaw daa bari ci yéen. bari na su ñun la ngeen la la la ngeen di jëfee. moo nekkul seen jikko loolu moo waral divorce bu bari bi. xam nga ku mel ni yow macha allah yow boo toogee yor sa kër say mbokk fii boo toogee ñëpp di wax te bu neen ndax nit dafa baax ñu ne mbokk yaa mbokk ndax mbokk yaa ko wax. yow tey boo am na góor nu muy toogee noo xam ne bu toogee jàkkaarloog jabaram ni ko damaa bëgg jël beneen soxla da ko naan yàlla na yàlla na leen yàlla jàppale boo ci duggee yàlla na nga am ndam te ndaxte doo ko fen doo ko war di nga ko wax carrément li nga xam ne moo nekk ci yow dalay xamal carrément dafa xam sa lépp kon kooku boo demee ba ne ko damay takki jabar kooku dina dina ni kii bu takkee jabar bu ko indee ci kër gi du tax man fi ma nekk ma jóge fi fi ma nekk moom dafa ma bu indi fukki jabar it man fi ma nekk du ma fi du ma fi jële mais am na ay njuuj njaaj ak ay defin yooyu def yoo xam ne soo ne nit ki damay takki jabar am na ñoo xam ne dana naan boo ko takkee tey bu subaa ma génn kër gi. waaw loolu nag bàjj nag nag loolu nag ci lan la bokk nag. ah ci ci ci ci ñàkk laa wóolu amul ci yow ah, confiance wóolu rek loo ko dara wóolu rek wóolu rek bàjjante toog gis nga jigéen booy ci kër ba am fa njaboot xëy un mois dem benn jabar la moo xam wax na la ko moo xam waxula ko yow toogal léegi sëyatoo ak moom mm-hmm. da ngay sëyal say doom ak xale waaw da ngay sëyal ah. say doom maanaam sama doom yi lépp loo xam te ni manqué naa ko ci sama jëkkër ah. Ah, sama doom yi mën nañ ma ko mën nañ ma ko utal bu ñu màggee tabarkeel hmm. te gis nga bàjjan xar yi hmm. gis nga jigéen ki ñuy indi sa moroom jigéen la rek comme yow waaw warul mën a wan sa jëkkër wala mu def ko loo ko deful woon hmm. ci sama xar parce que jigéen nag gàcce la nga sëy say jëkkër si mois dong mu takkala wujju ñëw wujju woon ko lu ko jommal mm. ba mu lay abandonné loolu tamit jigéen ñi tamit dañ non ñëpp nag ñëpp nag duñu benn non non kaa ñu waxtaan nag déet gis ngeen ah. ni apparence bi ni mu amee ci yéen góor ñi <laughs> loolu la amee ci ñun jigéen ñi non non ñëpp duñu benn léeg-léeg nga gis ko a xam ne léppay mot këram mu mu génn uti <laughs> moom lépp moom déet ah léeg-léeg ñëppay mat nga dem uti ndax xam naa yaa ngi ci ñaar te boo demee yaa ngay woon am <laughs> yaa ngi ci ñaan te leer na ma ni allah ñoom ñëpp keen meru ci waaye leer na ma ni waaw leer na ma ni yaa ngi ni di wari ñetteel yéen góor ñi seen bopp yéen a jubul te man ngeen a wax lu dul dëgg man ngeen a engagé jigéen wax ko loo xam ne dara du ci am loolu moom am na waaw boole ko jigéen du ngeen fase boole ko ay doomam fase loolu nag moo waraloon émission bi parce que jël jigéen bàyyi ko ak doom li nga wax rek mën naa dugg ci tooxu noodo gu ne mm-hmm. yor njàngu doomam mm-hmm. pour yor lekk doomam pour yor naanu doomam mm-hmm. su fekkee am na ñoo xam ne leen fas seen yaay dee ñu fas leen seen papa dee seen càmmiñ la ñu am seen càmmiñ këram mënu ca dara mhm. léeg-léeg càmmiñ la luyee benn néeg dugal ca njabootam mhm. yow léegi nga jóge ci say parce que mënatoo fa toog mhm. mais da ngay luyee ji ah, néeg ba ngay luyee ji nekk fa say doom nag à tout moment lu nekk mën na la fa fekk ah, lu nekk kon nag émission bi ah. wax dëgg yàlla neex na émission bi jaar na yoon émission bu ñu sañoon nag lu jeex heure bi mais nag temps bi moo ñu xaw a xoj ah temps bee ñu xoj waaw waaw techniciens yi nee nañu heure bi jeex na kon nag léegi dañuy def dul tàggoo ak yéen vraiment euh, di dellu di sant di leen gërëm ak sunu auditeur sunu auditrice yi nga xamni ñun ñu ngi sétane ah di nak boole ak taggo bi. Mhm. ah di taggu nak yeen ñepp ñu leen doon ñun doon sétane ah di leen wax ni a mardi prochain ma ngi euh, taggu ñi nga xam ñom la fek ci bir kër gi bamba sama dom ji ma jàkkaarlool fi attention xali jigen dañoo feras dañoo xawa doy waar jallo boy dugg na nga dugg ci lo xam ma ma bamba yembal yeen ñëpp la wax xali ci kër gi mom mo dugg leen ci lu ngeen xam. xale yi feres nañu mën nañoo bënn mën nañoo tent seen bopp yi ay xale yi lan xo lan loo xam ne ko bëgg a yóbbul dara sa yaay na nga xool baax da nga koy yóbbul maa ngi leen nuyu nag yéen ñëpp nag ñoom kooña may nuyu euh, bu ndaw bi nga xam ne moom ma defal ni sañ si maquillage bu rafet bii may nu may tàggu tamit imam di ko wax ni mardi prochain ah may seet sama yaay ah ndem baak ndem seer mu ca mboojeen yàlla na la suñu borom fëggal sa bopp ba nga jóg te bañ a tëral kenn may ah, nuyu tamit waa Wakhinane Mizane bi nga xam ne fa laa jóge woon maa ngi leen nuyu waat bu baax di nuyu grand Cheikh naa Dieng moom frère yal na yàlla def jàmm te dolli la wér Asou Faye Dieng yal na yàlla dolli wér Doudou Dieng maa ngi lay nuyu Nogay Ndiaye aji bi nga xam ne ma yor sama yaay yal yàlla defal jàmm defal ñu salaam defal ñu xéwal gu bari may nuyu Ngone jàbba yaay sama taabu jigéen bi ci kër ga moom tamit lii ñu wax rek mom tamit dañ ko fassé fassé waale dom yi loolu mo waral émission bi dafa bëri dafa bëri jigéen ño xamné dañ leen di fassé fassé waale seeni dom té loolu goor ñi war ngeen ko sétat un jour viendra papa dañ may may, no ñëwé ci kër ga papa damay takki jabar no ñëwé ci kër ga dé leen topatosen seen dom yi dé leen topato seen dom yi amul solo may taggu ñëpp di gëreem ñëpp di sant ñëpp faat dafa nam naa la plateau bi nam na la nga nekk ci jamm oñaa ma taaw bu jigéen bi yàlla yàlla defal jàmm maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp góor ñi tey leen seen jabar yi bàyyi leen fase doom fase yaay teg ci doom yi erreur bu mag a mag a mag la géwal tàggoo baa ngi noonu. jërëjëf maa xadi ak salaam lu jiw jeexul jógu fa te du fa mës a jóg. dëgg la kon dañu ne tàggu tàggu bu àndoon ak tàggatoo. Mm. wala kon dañuy tàggatoo rek tàggatoo bu bokkut ak tàggoo. Mm. di leen jox dig daje. dimanche wala boog talaata bii ñu jëm incha allah. Mhm. ñu ngi gërëm suñu téléspectateurs yi nga xam te ne ñoo ñuy seetaan bu baax a mhm. baax di leen ñaanal yàlla yàlla bàyyi ñu ak ñoom. ah di ñaan émission nëbboo yal na yàlla yokk barke bi. amiin donc yàlla émission la boo xam ni Sénégal yëpp dañ koy topp. ñu ngi gërëm waa port waa Delta shipping di gërëm sama xarit bu baax bu ñu wax Gorika. ba mu nay Ngalla Fall ak Mor mhm. di gërëm sama askan waa kër Turandoo sama kër Turandoo. di leen dox askan Biram Ndaw Faale Ngom di ko teg ci loxol Aji Ndeye Ndiaye mbokk nday Aïda Sow mu nuyul ma foñ bi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ku lim da ngay juum wala boo juumali doo matal waaye li wutoolu daay mooy ñu ngi sant xarit ak dëkkandoo ak mbokk yi waaye du nuyu waa ak mesere bu baax a baax moom ni fa laa bàyyi ko du nuyu sama nijaay Pambaay ak njabootam alaaji mbaay bi nga xam barki dembu la joge Europe ñoo wax rek yalla defi teranga yalla na yalla yokk teranga amin amin ajaa xadi aduna amul solo mm-hmm. te waykat bi dani sa dom ji bo ci deful li la war su magge do xam la ko war deug la te ku fi tedd dom mo la teral way ku fi toroxit dom mo la toroxal deug la kon nak nañ sàmmonteeg suñu njaboot yi xam ñu ngi and ak seen yaay ño xam and ñoo ak seen yaay di nuyu señ daga Faal bu mam malik di nuyu am satu jonn mantaak baba bira di fassa fasa darman ko bi moo ki di sang taw ndey damay mën mbay di saare ñep ñep ñep nar mbay di téye bi nga xam te ne moom may solal saab may ñëw di sama rakk ñu bokk benn baay ci Touba yal na ko yàlla defal jàmm ajaaxal yi lu jiw a jeexul jóge fa comme ni ma ko waxee ay wax du jeex dañ koy jeexal kon ñu ngi daaneel foofu sunu di ñaan yàlla mu may nu fekkaat beneen talaata incha allah ci barke Seydina Muhammad asalaamaaleykum amiin may nuyu nag sama taaw yaay nag Ndey Jeng dafa feebar nag moom tam yal na yàlla fëgg boppam waaye waaye ñi feebar yal yàlla fëgg seen bopp waaye yàlla defal ñu jàmm ak salaam Mohamed Mar depuis Italie maa ngi lay nuyu di la seet yal na yàlla def jàmm te dolli xéewal dolli xéewal waa Italie yëpp xale yi nekk stéri yëpp yal na suñu borom dolli seen i ci barke Serigne Touba kon nag merci beaucoup. jërëjëf ñu ngi nuyu waa Cissé famille bu ak Amar incha allah waa Cissé ñu ngi leen di nuyu ak waa Falen family. <laughs> suñu ñëwee maa yow lu ma doon lañ tudd waa Cissé famille di nuyu Aïda Ndiaye bu bàjjan Aada Faye di nuyu wa Falen family di ko jox jox Ibrahim bay. mu nuyu waa Cissé famille ak waa Fadel famille bu baax a baax a baax yal na yàlla defal leen jàmm amiin amiin ajaaxante wax dëgg yàlla danoo foog trop trop trop bëgg na yàlla defal leen jàmm bi jaay seen naam asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu jërëjëf imaam ñoo lay ñoo ngi lay tàggu de passage ku baax la incha allah taalibe la ku baax la yal na yàlla defal ko jàmm moom tamit